asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 27 décembre 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fa la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki nag yëglikaay bi moom fa mu xëy ñëw mooy ci diggante ki nga xam ne moo di Eumeu Sène ancien roi des arènes ak Bombardier mi nga xam ne tamit dégg na roi des arènes ñaari yoon mu mel ni ki nag seenub combat fi mu nekk nii daal mu ngi toll ci tànki ñu war koo taxawal ka ko wax nag moo di ki nga xam ne nii moom moo di Max Mbargane moo tax yëglekaay bi ne day daa mel ni ngandum cadeau de Noël cadeau de Noël boo xam ne bu rëy mu ngi yot amateuru lamb yi li ko waral mooy diggante Bombardier ak Eumeu Sène daal ci tànki mu taxaw fi mu nekk nii moom la ñu ne mu mel ni ki nag Max Mbargane ma nga xam ne moom mooy mënaat sa Bombardier moom la mu xam ne day ne na fi nii ñu ngi ci ay waxtaan waxtaan yoo xam ne daal yu soree soree sore la maanaam seen waxtaan moom fi mu nekk nii moom ya mu ngay gën a sori ne na daal yàq jàpp na ne daal question de heure maanaam daal ci wàllum waxtu wala bés daal moo ci des waaye jàpp nañ ne daal combat ba moom léegi daal mu taxawul combat bi taxaw moom ba ñëpp bëggoon ko mu far taxaw ka ko taxawal di lig Nicolas moom am na koo xëy na koo xam ne tey xëy na ci yëglikaay bii di sunu làmb muy Malick Thiandoum Thiandoum nag moom wax na bu baax a baax a baax te itam nag la mu xam ne daal ne diggante am ak Modou moom boo bëggee dégg-dëgg moom nekk na combat boo xam ne hypothéqué wu na ba pare lool daal la wax maanaam daal combat la boo xam ne moom lëj moom dal dina koy def fi mu nekk nii te ko mën a lijjanti jàpp na ne kenn la muy ka ko taxawal muy lig Nicolas ñu ne ko doom ja Thiandoum ne déedéet bu kenn wa waxi doom ji nag doom ji fi mu nekk nii moom la nga xam ne nii moom la papaam man wala fa mu toll ci wàllum organisation ak seere ay làmbam doom ji amagul boobu expérience ci wàllum organisation ak xam-xam ba moo tax mu jàpp ne moom kon combat boobu moom ak yàqu-yàqu moom la gën a jege ni ak defaro bu fekkente ne lig ni ko laay daa continuer di nekk ca kaso ba ka nga xam ne daal moo doom ja moom candum daa mel ni moom loola ñuy wax ci doom ji doyu ko ca parce que daal jàpp na ne taxawaay ba lig am wala ba mooy am ci ay bésam doom ja pour mu am ko ca day jafe ndax am xelam ak i yeggagul ci boobu niveau waxi Malick Thiandoum la du samay wax leneen loo xam ne nii wala meneen mbir moo xam ne nii moom mu ngi neeti kët ne jon tey yëglekaay bi ñëw ci muy diggante Papa Sow ak Fass mu mel nekki nag diggante boobu moom loo ci mënti dégg daal yëglekaay bi na papa moom fi mu nekk nii dafa mel ni mu nga jël aw yoonam jëm ci kereeb écrit maanaam daal ut écrit bu bees boo xam ne fa lay tàggatoo sunu làmb nag moo xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nii moom ginnaaw ba ko Moussa Ndoye rejeté jën kayre am na ñoo xam ne nii moom bëgg nañ koo dal ci seen keppaar muy ki xam ne ni moo di Diène kayre ña ko bëgg dalal nag yëglikaay bi ne du kenn ku ki nga xam ne moo di Moussa Dioum ak ka xam ne moo di les deux ñooñu moom daa mel ni ku leen ko jox ñu jël ko lekk bu am moom Diène Kaïré te bu keroog gay itam bëreeg moom ba mu saf-sap la ñuy def leneen loo xam ne tamit dañ cay ñëw muy làmb yoo xam ne daal jàppal ci weekend bi nar naa jax lool kay jëkkale nag mooy Bamba Faye suba ci samedi ji Bamba daal moo indi ki nga xam ne moo di góor gi étudiant ma ngeen xam dëkk ca Tëngéej ak ka nga xam ne moom mooy Boy Balde moo mel ni ki nag combat bu moom suba lay am lu muy nar a nekk combat boo xam ne bu nar a méttee métti la moo tax nag Ousmane Diouf ma ca RDV mu ngay wax ne nañu moytu de def ci ndànk ndax ñoom ñaar ñii dóor mu daanu mën na am ci seenu diggante ndax Boy Baldé moom képp ku ko xam xam ne technicien la boo xam ne nii moom boole na ko xeex bu méttee métti te góor gi étudiant physique moom da ko yor ba mu doy sëkk ba pare dëgër këng la def moo tax daal boobu combat kon suba moom nar naa tar ka fa jaar nag du kenn ku dul ki nga xam ne moo di Bamba ab drapeau muy ki nga xam ne nii moo di Saliou Khoule ma ca Zik FM moom nag mu ngay wax ca Leewtoo TV drapeau am booba neex ga mu ko neex ak tamit Bamba ma ko ca delloo njukkal combat am nag wala drapeau am ña koy bëre mooy diggante junni ak booyloo moo tax itam loolu suba lay am fa nga xam ne mooy ca stadium Iba Mar Diop waaye moom kay ñëw du kenn ko dul Assane Ndiaye borom Baol production Assane moom la mu indi ay combat yu neex a moom tamit la indi ba ca jëkk nag mbër borom parcelle mu mel ni ki foofu tamit daal dimanche moom nar naaxat ak yeneen combat yoo xam ne ni daal boo bëggee dégg-dégg lépp ay grand combat la Assane Ndiaye production moo fa jaar mu mel ni ki tamit jamono jooju lambi simple ji moom mu ngay dox wala boog yëglikaay bi daa ñëw ci benn taxaw seetlu daal boo xoolee ci diggante boo xam ne daal espace wala boog diggante bu gàtt-gàtt bu toll ci semaine wala lu ko yées wala lu ko tuuti daal kii di caaka fay moom daan na ci général Malika ñetti yoon yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax kenn koo xam ne ni moom dafa meroon kere ba taakle arbitre du kenn ku dul Ibrahima Fall ba tey ci lambi simple ci la yëglikaay bi ñëw na tey wax ñu ko mel ni kii daal kon soo bëggee dégg-dégg moom lambi simple tamit mu ngay dox ak 10 millions yoo xam ne am na fa nga xam ne mooy ca arène nationale waaye leneen tamit day décembre fa nga xam ne mooy ca Diouroup yëglikaay bee ci ñëw muy huit cent mille francs yoo xam ne dañ ko faa teg mu mel ne ki daal kon soo bëggee dégg dëgg moom làmb ja mu ngay dox waaye daal ku mën a waaj commencé suba nga waaj la Iba Mar Diop suba Bamba fay du yomb góor gi étudiant Boy Balde bët set Assane Ndiaye ñëw sàppali ko Aline Sey Signor mu waalo ak Tafa Mbër borom yanca mu mel ni ki kon foofu moom circulation ba dana fa xat ba yegg ci lool jërëjëf Babacar la ñu àndaloon ci revue de presse bi yéen a ko déggandoo ñu koy ñaanal yàlla gën a wéral baat bi waaye tam di nuyu mboolem ñu ñuy suivre ci Leewtoo TV euh, ci internet bi waa Ngunjaan Pey Joor Samel waa Càngaay ñëpp daal soppe yi ñu ngi leen nuyu baax Babacar ñu ngi leen nuyu waaw maa ngi lay biram di nuyu képp ku ñuy suivre di wax amin si ñaan yi am na solo yàlla nañu ko yàlla defal di nuyu ñëpp ñu ñuy suivre rek à travers le monde rawatina fi nga xam ne nii mooy Leewtoo TV di nuyu képp ku ñu seetaan mais di nuyu tamit nga xam ne mooy Ndeye Coumba Fall bi nga xam ne suñu jigéen la te ñu daan ànd ak moom liggéey bi te yàlla def tey yaram yi xaw a sutante ñu koy ñaanal yàlla mu jóg ak jàmm di ko nuyu di nuyu doom mère Sow ak euh, yaayam mère Sow di moins ak doom Mouhamed Diouf ah waaw waaw. waaw dañuy wax amin di ko jotale nuyoo bi rek moom Ndeye Coumba yàlla na ko yàlla wéral ak jàmm euh, sunu làmb tey mu ñëw ak ñun diggante ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène ak Bombardier ñaari roi des arènes yi mosalaale ba pare. waa ñaari ancien roi des arènes parce que laal nañ benn yoon Bombardier Eumeu Sène daan ko jël na roi des arènes ñaari yoon di lu amagul tey ñu wax seen revanche que ni presque taxaw na mu mel ni kon amateuru làmb yi ah yaakaar naa ne combat boobu dina leen war a neex Bombardier ak Eumeu Sène waaw parce que lu ñu jàngate ci journal bi wala ci manager Bombardier di Père Max mooy que ay heure wala ay fan sax xëy na moo des wala nangam ak yu mel ni kii noonu wala boog sore nañ ci waxtaan waaw loolu dañ naan lu jaadu la parce que yaa ngi dégg yaakaar naa lamb yooyu sax kii ñu ne fi ñu nekk nii ñoom ñoo ko tëggoon muy waa Leewtoo yaa ngi dégg waa Leewtoo production ñu ko organisé woon mu nekkoon combat royal yaa ngi dégg kon nag yaakaar naa tey suñ doxaatee ci diggante bi ba ñoom ñaar ku ci ne seen carrière am na mu deme ndax Bombardier dafa newoon ci lancé bu doy waar ba nekk roi des arènes deuxième fois Eumeu Sène ñëw freiné lancé boobu nangu roi bi ci moom Eumeu Sène moom itam nekkoon ci lancé daaw combat bi mu jël saison bi ñu génne mu ñàkk roi bi ci kanamu Modou Lo kon tey defe naa bu ñu doxaatee ba promoteur bëgg seen combat ba di ci dox ba sori ci comme ni ko jàngate ah dañuy ñaan yàlla rek mu réussir parce que lamb la te revanche la. Euh, dina am solo Babacar ñuy dem rek ci Modou moom nga tudd moo war a bëri ak Ama Balde euh, ko Nicolaï taxawal kombaa bi dem ba diggante bi am ay jafe-jafe ak yoon ba doomam euh, jël flambeau bi fas yéene continuer waaye itam xel xaw a tuuti ndax doom ji miin na ndax mat na ndax mën na. waaw loolu suñu grand càndum moo xëy tey ñëwee noonu ci yëglekaay bi que ni moom est-ce que waaw moom jàpp na ne doom ji àttanul loolu yaa ngi dégg expérience bi Luc Nicolaï am wala ni muy taxawu ay bisam doom ji yeggagul foofu ci wàllum xel ak xalaat loolu nag xel war na ko mën a nangu parce que lu tax mooy Wily xale la yaa ngi dégg kon càndum xëy na fa muy waxee mooy que ni eh, maanaam lii Luc Nicolaï nekkul li nga xam ne ni mooy Wily yaa ngi dégg donte nag Wily xale la boo xam ne nii mu ngi ci keppaaru papaam depuis boobu ba tey ñu koy ñaanal yàlla yàlla gën ko aar gën ko sàmm ba xëy na tey eh, lu papaam di def mu war ko mën a taxawee ëllëg loolu la ñuy séntu ci moom waaw du tere nag it yaakaar naa ñi doon encadré bu buñ ko encadré ñemeloo ko itam war na mën a doxale noonu waaye nag loo gis tamit yaakaar naa ne euh, dafay am lu muy laaj ci wàllu xam-xam parce que làmb ku ne xam ne dafa metti surtout ma làmb boo xam ne ay dizaine de millions lay génne ci xaalis yaa ngi dégg kooku yaakaar naa ku koy gàddu rek war nga nekk nit ku am dal war nga nekk nit ku ñeme war nga nekk tamit nit bi nga xam ne nii ku mën a muñ ay pression ngay doon parce que lépp da ciy da ciy nekk day am ay bànneex am ay naqar am ay teqatal ak yooyu mais nag du tere mën nañ ko ñaanal yàlla bu fekkente ne moo fi sës comme ni olof yi wax a ah, yaay mooy taxa falu te olof tamit nee na ginnaaw bukki mbaar bu fi sësee yàlla na ko def waaye ñun bu ñu sañoon moom wax dëgg yàlla lig mooy génn ci kaso ba ci lu set wecc ñëw taxaw combat bu nga xam ne mooy Eumeu Sène euh, astaghfirullah boog ma naan Eumeu Sène sax mooy Modou Lo ki nga xam ne ni moom mooy Ama Baldé waaw waaw na ciy topp Babacar parce que Luc amal na lamb ji njëriñ bu bëri kon yàlla na ko yàlla génn foofu ci jàmm ak salaam suñu lam ñëw ñun ci Diène Kaïré doomu booy kayre bi waa Diène Kanta Diène moom déglikaay bi dafa jàpp ne tey Moussa Ndoye lañ doon wax ay waxam ndax kër dimanche defe naa ku demee stade dégg nga ñëpp a ngi doon yooxu Moussa Ndoye Diène Kairé Moussa laaj naa ko mu ne moom bu bëggee sax waa yaraax bëgguñu kon moo lay wan ne kon moom bëggul mel ni ki nag moom ba mu bañee la olof naan bañee làmbaay nangu ndax mi ne am na ñaar ñoo xam ne moom ay mag lañ ci Diène Kairé wala ñoo ko jëkk si làmb muy Moussa Dioum ak ki nga mooy lees deux ñoom pare nañ ngir tendre ko la perse maanaam jox ko buum bi mu jàpp ci ñu bëri loolu nag mooy làmb parce que lu tax mooy ay ay day am si làmb revanche nag war ah, revanche day am mais dama bëgg a wax que ni ma essence boog day am si làmb te tamit yaakaar naa ne làmb du ak maas damante la ñii dañuy fii fekk ñii bëri ak ñoom boo leen réussiree daan leen noonu la bu ñu la daanee mooy loolu yaa ngi dégg parce que làmb noonu lay doxee mag ñi xale yi ñooy ñëw fekk leen fi di bëre ak ñoom ba bañ leen fiy jëlee mag ñi bàyyi maanaam xale yi continué ñooñu tamit beneen génération ñëw fekk leen fi jën kay de bi fekk si ñoom Moussa Dioum la ak ñoom ki nga xam ne nii ñoom ñooy ay les deux ndax papaam booy kay ñu koy nuyu di ko siyaar mook ñu ma wax bokk nañu benn carrière di ko bëreendoo waaw mm, jërëjëf Babacar ñu ñëw ci Papa Sow Papa Sow dafa génn écurie Fass ñu koy xalaatal ndax day former beneen écurie wala boog day topp ci ginnaaw beneen écurie waa Papa Sow moom yaakaar naa ne tey kanta comme bu ñu dafa génne écurie Fass wala dàq nañ ko ci écurie ñu xëy ñu ne tey ndax dana créer écurie wala yu mel ni ki noonu ah loolu yaakaar naa ne Papa Sow am na si droit bu ko neexee mën na créer écurie su ko neexee mën na dem dugg ci beneen écurie yaa ngi dégg am na ñooñu tamit ñu ngi bëgg tey mu bañ a génne écurie kon ñett yooyu yëpp a ngi taxaw waaye man moom yàlla na yàlla def bi ci gën bi ci gën nag mooy defe naa njaboot gi mu bokk ñu waxtaan déggoo ci sama xalaat lay waxee pour ñu mën a nekkaat continuer seen liggéey bu nekkee tamit bële bële tamit mën na gën créer écurie loolu tamit fa lillahi alhamdu bu dee dugg ci benn écurie tamit ba tey lépp mën a nekk waaye daal la ma waxoon démb laay waxaat tey rek diggante bi moom suñu amee ay relation wala ñu dund loo xam ne ni ay at la parce que dund ay at xamante jëflante bu rafet yaa ngi dégg kenn mënu ko effacer li am solo nag mooy suñu tolloo ci jamono yi parce que jamono yi day am ci àddina dañuy dem ci day am ay ñëgg ñëgg jaabal bàyyil su ko rek dafay soxla ñu ànd ak suñu xel dal ba nga xam ne nii loolu duñu mën a feebi ba di ñu yóbbu ba ñu dugg ci lu ñu na warul dugg wala ñu koy wax wala ñu koy jëf ndax saa yu yooyu Amérique après ëllëg heure ci mën na ko jur quoi kon yal na yàlla tàppe xol yi comme ni ko maam da baax daan waxee daal. Mm-hmm. loolu moom amin lañ ci waxte xam nga yow moom boo waxee <laughs> li maam da baax daan wax moom xel dana gën a euh, sedd waaye Babacar ñu ñëw samedi drapeau sa xarit mm-hmm. Saliou Khoulé. waaw ndeysaan borom Zik FM saa sama xarit sama doomu ndey ndax ku la safooti faalo ko. waaw àddina am solo loolu la ñu wax te moom yaakaar naa ku ne dégg na ni muy waxee ci baabakat ci animation ci Zik FM kon bu ko Bamba fay delloo njugal mook meson di garde corps yu Sénégal yi muy suba samedi drapeau bi dox ci diggante Boylo ak junni defe naa lool suñu drapeau la suñu yëf la ndax gis nañ ko tamit ci vidéo ci ci Leewtoo TV mu ngi wax moom Saliou Khoule ci drapeau fi mu ko yegg ak yooyu kon defe naa suba kon Iba Mar Diop nar na neex trop trop ndax Saliou Khoulé moo xam ku ko tudde drapeau tudde nga ko réew mi wala man tudde nga ko àddina te xam naa ne suba moom ah Bamba na xaar dina gis gan yoo xam ne ci stadium bi moom yaakaar naa ne mosuñoo ñëw làmb wala boo gëj nañu ñëw làmb te suba boo sàgganee incha allahu rabi di nga leen gis ndax lan ndax Saliou Khoulé <laughs> xam naa ne làmb ji koo ko fekkee kër daal yàkkamti nañ loolu dugg sim bi ndax dina andi caay ja mbir déet waaye dimanche Assane Ndiaye bool bool mag waa Assane ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu staff Bawol bi yëpp moom tamit parce que moom comme li may wax rek moom làmb da koo dund en tant que amateur ba pare xëy nekk promoteur moom it kon yaakaar naa ay journéem loolu mooy faral tax ñuy gis muy am benn réussite bi ak yenn combat yu neex yi mu andil ñu nag dimas Alioune Seye Junior ak Tapha Mbeur ñaari mbir yu jóge ci defet ku ci nekk tey di xeex ngir bokkaat ci rang bi ci course bi ah di nag euh, làmb moom defet la match nul ak victoire am faw am ku ñàkk wala match la am ca waaye li am solo daal mooy que ni moom combat bu neex a neex la rawatina xale yam ca dugal ay joomaa yang ci biir ak yeneen xale yoo xam ne nii ay mbër yu am ginnaaw lañu ak mbër mu mel nii xale bu mel nii caatu montagne nekk écurie Fass daaw yaakaar naa Assane Yaay ko tëgg li ñetti yoon yu bëri yëpp te ku ne gis na mbooloo ma muy drainer ba pare daaw mu nekkoon tamit ci maanaam révélation ci espoir yi ak yu mel ni ki noonu kon daal daa mel ni tamit dimanche moom incha allahu rabbi ah euh, waaw bu jógee ci Bamba Faye wàcce ko ci Assane rek dana neex trop te dana yëngu incha allah yàlla nañu ko fekkee ne tal ko amiin na ciy topp ci beneen wàll ga lutte simple gën a jóg ba ci 10 millions arène nationale jax indi ñu fa teg 10 millions waa Jax moom du ñu mën def la dul jaajëfal ko rek waaw parce que itam loolu moom yokkute la rek di ko ñaanal yàlla journée boobu lim ciy séentu yàlla na ko ci am barke yonent bi sallallahu alayhi parce que tamit lit simple bi mu ngi dox comme ni mu koy waxee chaque jour rek Jax tamit nekk nit koo xam ne nii osé na ci li muy def kon yaakaar naa xëy na moo tax mu teg 10 millions dimanche yàlla na ci génn ak jaam loolu lañ koy ñaanal. amina ci topp mbokk noonu lañ leen di tàggatoo di nuyu képp ku ñu suivre ci Leewtoo TV nuyu équipe Leewtoo bi yëpp waaye nag mboolem ki nga xam ne ñoom ñoo ñu suivre rek ñoo ngi leen di nuyu. Eh, di nuyu waa Ngunjaan Pay Joor Samel waay Ibra Sarr ñoom Omar Thiaw vraiment Olagu eh, Yàlla Pangol ñoom Amadou Diop. Euh, le professeur Ibra Sène bu Michigan ñoo koy nuyu bu baax waaye itam nuyu bu baax waa Italie ñoom Ibra Astou ñoom Baptiste At ñoom Modou Badiane vraiment ñoom Fat Sam ñu ngi ciy suivre ci Leewtoo bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fàttewuñu kenn Badou le phénomène de Mbousnakh ñu koy nuyu bu baax moom itam. waa ndeysaan waa noonu nga ko waxee nuyu nañu ñëpp képp ku ñu suivre ak fu ñu mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziar waa di nuyu comme noonu nga ko waxee waa Ngunjaan maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ndax bari naa fa ay soppe trop wala bari nañu fa ay soppe kon ñu ngi leen di siyaar yëpp yëpp rawatina ku mel ni maam jaar bu ngel jon maa ngi koy nuyu ak ku ñuy wax source bu mbër ngi lay bëggee ah di nuyu képp ku ñuy suivre ñoom tuuti yaay Sarr Abdoulaye Mbaye xam nga Mbacke Diagne Ousmane Diop Assane Sall fi ci waay mën nekk rek ngañ sow ca états ma ko fàtte di ko nuyu bu baax a baax di nuyu sama rak sama xarit Youssou Ndoye l'international ak nga xam ne mooy Saliou Ciss moom du jour équipe nationale mais di nuyu képp bu baax Ba ak doomam tamit Mami Ndoye di nuyu daal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre li nga xam ne ni mooy Leewtoo TV mais tamit di nuy ñi nga xam ne ni tamit ñooy sama waa gox muy waa Bawol rawatina fa ma dëkk muy ak yaay mais rawatina tamit commune Ndondol bi yëpp maa ngi di ziar di wax ka ni rek waxoon naa ko dem dinaa ko waxaat le 31 décembre final nawetaan boobu ñuy seq ci diggante benn ASC bu ñuy wax Mbomboy ak ASC Renaissance bu Sessène yàlla nañ parce que maître Pape Sène ko parrainé te maître Pape Sène ku ko parrainé rek boole nga Babacar ci biir ndax moo ma ji loolu quoi di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne que tamit Modou Diouf Petersen maa ngi koy wax mention spéciale kontaan naa ci yow bu baax a baax. jërëjëf kon loolu la ñu indi woon ci njàngatu arène bi ba lundi incha allahu rabbi jërëjëf.